te noo noo ñu arrivé ba tey ñu ñu président république son excellence Macky Sall mën na ko inauguré dafa nekk tamit lu important parce que ñu ngi wax Afrique dafa am souveraineté numérique am te lu lu ñu wax euh, téye suñu moomeel ni ngir moom suñu ëllëg dafa nekk lu am am solo ci ñun donc loolu moo aussi ñu ñu nekk fi Diamniadio euh, wetu euh, université virtuelle wetu isab ISEP Diamniadio wetu pathologie numérique le moo le wone que Sénégal am na vivier technologique si technologie bi té mën lolu aussi mën ni comme comme pour réew bi que ça entreprise start-up yi aussi mu am nit yo xamné dinañ ci am aussi liggéey mën ci dund donc infrastructure bi nak infrastructure bu mak la euh, un hectare euh, le moy capacité bi té surface ba ñu bâtir ni 2500 mètres carrés la donc si yoyu euh, si réseau si énergie ak si sécurité vraiment lepp def nañ ko

salle bu 250 mètres carrés boo xam ne secteur privé bi comme li ñuy wax souvent secteur privé bi dafa am dafa soxla am infrastructure te état topp euh, euh, dimbali ko si loolu donc ñu ngi am aussi capacité boo xam ne mën a accueillir secteur privé bi te mën nañ vraiment dimbali ñu mën a aussi am infrastructure bu am solo. donc loolu direction générale du pôle urbain Jamia euh, ak la Rose ak Agéro ñu ngi fi liggéey donc gis ngeen sax tali bi latérite bi ñu ngi avancé te aussi infrastructure yi ñëpp am fii yëpp.